wuutu ko ca boobu la hôpital gis nañ ni daan yi yemul rek ci directeur boobu le ndax juróom-ñetti agent de santé yi monte woon ci guddi googu la astu soxna ñàkkee bakkanam teg nañ leen ay daan ba noppi doon nañ leen auditionné ci diirub euh, juróomi waxtu waaye audition yéen ba mu jeexee nag bàyyi war nañ leen ñu dellu seenu kër waaye naka tey jii ci bu ñetti waxtu jotee ci diggu bëccëg gi ñoom danañ delluwaat nag euh, commissariat central bu police ngir mën a xam fan la nii mujjee ci biir loolu nag ci seen auditionné boobu le sage nag ñoom ña nga woon ca commissariat central bu police ngir wane seen solidarité jëmale ko nag ci juróom-ñetti agent de santé yooyu le te nu teg leen ay daan naaw ba nu tekkee ndombal tànk directeur hopital Amadou Sakhir mbay ba woon di wéetu turu Amadou Gueye te kii di Abdallah Gueye nekk administrateur hospitalier wutu ko ca boobu la hopital gis nañ ni daan yi yemul rek ci directeur boobu le ndax juróom-ñetti agent de santé yi moonte woon ci guddi googu teg nañ leen ay daan ba noppi doon nañ leen auditionné ci diirub euh, juróomi waxtu waaye audition yéen ba mu jeexee nag bàyyi war nañ leen ñu dellu seenu kër waaye naka tey jii ci bu ñetti waxtu jotee ci diggu bëccëg gi ñoom danañ delluwaat nag euh, commissariat central bu police ngir mën a xam fan la nii mujjee ci biir loolu nag ci seen auditionné boobule sage femme yi nekk ci biir diwaan Louga gépp nag ñoom ña nga woon ca commissariat central bu police ngir wane seen solidarité jëmale ko nag ci juróom-ñetti agent de santé yooyu le te nu teg leen ay daan